sëñ daam doo xam kuy sëñ daam hmm. loolu moo tax d'accord hmm. ok te fi mu ne nii tamit naa laa wax ne sëriñ buñ fi jaay ci wàllam xam-xam bis buñ naa laa mën naa laa tëddloo mën naa laa taxawloo hmm. mën naa laa yuuxuloo sax yooyu yëpp xeete xam waaw sëriñ buñ fi jaay ba mu bokk ak man naa la mën naa mën naa laa tëddloo mën naa laa taxawloo mën naa laa yuuxuloo maanaam sur sur saase nga koy defloo li nga koy defloo ñëpp teg ci seen bët dama ne laa ne buñ fi jaayee nit ba mu bokk ak man plateau ma wax sama wax ma wax sama wax mu dugg ca yaa ngi dégg wala mu jéem maa attaqué ci lenn ma defal ko mbir mais am na sëriñ bu toog fii bu la attaqué fan yee dara yàggul dara yaay Fall euh, yaay Fall lu mu wax ci ma fii la toog ne ma sëñ daam de wax ko mu bàyyi démonstration yi muy def si plateau yeeg tëb yi muy def yaay Fall est-ce yaay Fall est-ce que bës rek est-ce yaay Fall ma xam ne du ma sa jàkkaarloo sëñ daam moom <laughs> xanaa ci mbedd yi lay war di wax rek nag sama sama jigéen sama jigéen bu baax la waaye nag waa xaaral ma ñëw rek sama jigéen la nag waaye dama ne moom laa ne ci mbedd yi doo nga lay war di wax rek waaye bu jàkkaarloo léegi yow fexe ko mu deen nag man mu deen nag man dama bàyyi sa yi ngay def ah, am na ko ne wax oustaz Omar Sall la xaw ma attaqué woon na fi jug taxaw yi may jug taxaw lu ci yoram daa daa xam lan moo nekkee ci man ba may jug taxaw lu mu ci xam mm. ñaari fan laa ko ñu tëj ko ci kaso ba ma yëgoon nga anamu léegi oustaz Omar Sall wala yëgoo ko ñaare fan laa xamay man kenn dama attaqué. Mhm. kenn dama attaqué sëriñ bu fi buñ fi jayteen ba mu may attaqué man damaa téye micro appal la bés man kenn ma tooy. appal ko bis kay la bés nga abal léegi nga ab abal nga abal ma suuf si kay. naa def sëñ Dame mm, kay loolu leer kon moo taxee nan amub yar ak teggeen rek mhm. waaw kuy laal nga xam fa ngay laal. am na nit ñoo xam ne kenn du leen laal de. man ak yaa ngi dégloo léeg-léeg Assane Ndiaye dana wax ma am na nit ñoo xam ne kenn du na ñoo ne kenn du leen laal day déglu musique euh, euh, sama benn rek moo koy faral di kii. Hmm. maam Jaara Seck. Ah, maa ngi koy nuyu baax sama caato yaay. Ah, moom ngay déglu moom dafa bëgg moom nee naa Assane Ndiaye lay kii. voilà. d'accord waaye am na ñoo xam ne daal kenn du leen laal. dëgg la loolu moom am na yoo xam ne kenn leen laal. am na ñoo xam ne seen sidit kenn du ko yëg. nit ak nu mu mën a mel sax nit moom kenn du ko xeeb. Mhm. d'accord léegi euh, ñu ngi ci Coupe d'Afrique bi ku ne xam ne ne suñu gaynde yi lundi passé jàkkaarloo nañu ak Gambie ba jot leen a gagné léegi coupe bi étoile bi mi ngi fii di Sénégal dina ñëwaat wala gisoo loolu. waaw leen ci xool te gis ko ci de te man ko cee wax mooy ndax man waa équipe bi am na ñoo xam ne doon nan ma ci woo waaye la ma leen wax ju ñu ko def man nag comme que sama réew la dinaa ci jàpp waaye assuré wu ma ne dina ñëw. te mhm. gisuma ne tamit coupe bi dina ñëw gisaguma ko. Mhm. leer gisaguma ne dina ñëw. comme que nag euh, sama réew la dinaa ci jàpp li ma ci man a jàppee waaye nag bu nu bëggee ma insérer leen génn insérer leen coupe bi ne day ñëw kooku moom faaw ñu jiite yëf yi dañ may woo. sarax yi may laaj ñu di ko def. bu bu bu leen neexee nag ñu bañ maa gëm banoonu ko. leer na ndax man neexalu ma teel même bu la njiit yi woowut sëñ Dame yow Sénégal waaw du loolu laa Sénégal nga dëkk li ma ci mën a jàppee jàpp mais dama ko assuré ah, loo xam ne damay wóor na lii du ne non pour sarax yi pour avant njiit di la woo sarax yi bu fekkee loo mën a def la nga def maa ngi ciy def lu ma man rek parce que sama réew la waaye assuré wu ma ne dina ñëw daal te gisagu ma ne dina ñëw su ma demee ko xool ko ba ma gis ci benn sarax boo xam ne moo baara yëf yi dina ñëw man damaa génn ñëw ci ñëw fii ci télé bi wax ko. vendredi bii di ñëwul la Sénégal ak Cameroun di tase. Mhm. gisoo ci dara Cameroun ak Sénégal. match boobu moom taxul maa gis ko euh, taxul ma gis ko waaye dina xaw a metti lool ci Sénégal moom. dina metti Sénégal waaw mais nag gisuma mais nag euh, taxul ma euh, wilife ko bu baax a baax. maanaam toxul ma jël mais sëñ xam nga ne am na ñuy toog fii nii nga seetloo leen mat match wala làmb ñu seet ko léegi nii wax la ci dara. waa xam nga kenn ku ne ak mbiram. Mhm. kenn ku nekk mbiram day ma yoon dane tàndatu nii rek yoruñu xam-xami dara ah, kàcc ñu ci bëri kàcc rek lañ def kubbi daaw am am na amul ñoo xam ne dañoo waat ne du ñëw waaw ah, loo ca gis kàcc bi hmm. kon nag moo tax am na ñoo xam ne dañuy wër plateau yi di kàcc nii rek wala lii ba ba jaam ba jaam la <laughs> wala daa am lu nekk ci ñoom nañ gëstu ji turu yàlla te dëggal bu ko defee loo wax loola sotti taxawuma fii ne mut loo day daan moom laa gis ndax mut loo daanut nan gëstu ji xam-xam bala ngay wax dara nga gëstu ko teg ko fu leer man da noonu laa mel man. ah bi de waroon nga ñu wax man da noonu laa mel. kon daal nañ jàpp ne match bi dina métti. Sénégal diggante bi bu ma fa gisee sarax boo xam ne moo kii mën naa mën na mën na ma laa woo. waaw bu noonu fu ma mën di nekkee ma wax la ko. bu ma gisee ne Sénégal ay gañ te ba mu leer man la Sénégal ay gañ mais li ma ci gisagu ni moom dana xaw a métti ci Sénégal. d'accord daa mel ne nag bi nga fi génnee ne da ngay tukkal àdduna bi ndax mooy gi daa bëri daa mel ne mooy gi daa wàññeeku wala tane na ci sa gis-gis wala. waa dana xaw a wàññeeku dana xaw a wàññeeku waaye damaa mujj jéggale ndax dafa am ay kilifa yoo xam ne ak ay nit yàlla yoo xam ne dana ma sëñ daam loo jubloo def yàlla ànd caag yow ndax nit ku set nga te xajoo ci jaaxa te missionnaire nga xam nga foo toll ci yàlla loo ko wax da koy def loo jublu yàlla day def loolu waaye nag sëñ daam jéggaleel loolu kilifa gu ne woona ma sëñ Dame kon ni naroon nga tukkal. waaw dama aalo woon naa ba pare. xam nga man sama wax aal kii baaxul man ba ma aaloo ba mer rek. li may jël dama xanaa yow booy tukkal àdduna bi di nga xalaat yenn kilifa yi. waaw de looloo tax ma ne ñoo ma woo. ak ni kaw nu ma ne nga xam ne boo tukkalee. waaw moom laa ruslaane moom laa ruslaane ak yeneen i kilifa yoo xam ne dañ maa woo ma lépp loo jàpp bàyyi ko te laabiire rek génn di leen laabiire rek amal yërmande rek wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin moo tax it ma amaat ma génn naa def déclaration na jéggal naa ñepp baal naa ñepp mës wax ne boo duggee Dakar day mel ne seet lañ la tegal day mel ne seetu lañ ma tegal yaa fi ana lan nga gis eh, appartement Dakar fii ba léegi kay doy na waar ba léegi mooy ba doy na waar waaye kon léegi ni déglu sama wax yi tey fexe di góor góorgóorlu du ah, sellal di set ndax fi mu ne nii tamit eh, yàlla danañu téye eh, fëch borom bi subhaanahu wa taala génn na ci alxuraan am na saaro nex wal xasri suñ boroom da cee waat waat tàng jër na dinaa leen tey hmm. waaw suñ borom dafa waat tàng kon léegi am na ci ñoo xam ne suñ borom dañ leen tey te bu leen téyee sa war a tamit nee na ko woon borom subhaanahu wa taala ah, faaw ma moste maanaam faaw ma amee gaay yàlla naka waaw ba noppi hmm. kon du tas yaakaaru sawara àjjana tamit xam nga dana am nit ndax am na nit yoo xam ne nit yi àjjana la wala doo ko dégg hmm. doo gis nit xool naa ko eh, yow de nit àjjana ah da nga gis tamit nit ñaa ah kii kay moom alhamdulilah alhamdulilah kon xam na ne kii baaxul waaye da ngay dégg naan alhamdulilah alhamdulilah kon léegi sawara faaw mu mos àjjana tamit faaw mu mos. d'accord léegi nag yàlla moom bu ko neexee mën na dugal ni tuuti sawara génnewaat ko dugal ko àjjana waaye kon ñu bàyyi ci xel bu baax te déglu sama wax yi baax a baax mhm. caaxaane ñu koy wàññi bu baax a baax a baax yàlla ku bëri yërmande la nag waaye ñu wàññi caaxaane daal dafa jéggi dayoo jéggi na dayoo lool dama dama dama dama euh, euh, gis ku ne euh, dafa am ko xam dafa wéradi woon ba da doon def ay yu métti mhm. ba dañ ko doon jéng mhm. mais bañ ko indee ci yow dafa dafa sukk mhm. loolu loolu affaire geste boobu jaaxal ko ba damay dindi jéng même jinne lu mu garaaw garaaw day sukk man noonu laa mel doomu aadama tamit lu mu garaaw garaaw luñ ko yooxoo yooxoo man bu ma ko indilee ma sukkuloo ko te dama koy faj ba mu ne coot ci dimbali jaay bokkam loolu kay kooku dafa ko jaaxal loolu xam-xam la loolu xam-xam la mais réew mi fii mu booy wax ñoom bu ñu xam li ngay wax mais li ma la wax nii la li ma la wax ni xam-xam bu wér la sëriñ daam boo ko indilee nit ku wéroon mu faj ko ba mu ne cooc mu la doon def ci mbedd yi ah, même ku simmiku na laa solal yéere loolu koy moo gën a leer simmiku jaar ci mbedd say bokk bu ñëwee sëñ daam indi la solal la yéere solal la yéere raxas la ba nga seet wecc nga dem dimbali ci say ndax la la ànd yow ba ngay simmiku loola la sëñ daam di tàqale ak yow xanaa kon yàlla mën naa maye mhm. yàlla li mu yor xanaa xamoo ne foos ci nit ñi la ko def waaw ba baa xam nga ci sekkere yàlla la mu yor ci nit ñi la ko def boo gëmul nit dana yéeme de. ndax boo gëmul nit nit du la mën a dimbali. kon moo tax yàlla mi ngi ci nit ñi ñu bàyyi ci xel. am na ñoo xam ne nag ñoom dañuy téye fooy xool ma lu am solo laa lay wax. am na ñoom dañuy téye naan man yàlla rek laa gëm boo nee ne ana yàlla mi ngi ci kaw. Mm-hmm. wallaahi ñoo réer yàlla mi ngi fépp yàllaa ngi ci nit ñi. yàllaa ngi ci nit ñi. Mm-hmm. ku setal sa ruux da nga jege yàlla. te boo jegee yàlla loo ko wax yàlla def. Mm-hmm. dama la xëy xam naa ko. d'accord Euh, gars yi tamit bëgg nañu xam ne nañu élection yi di jub si nu muy demee ndax ku ne xam na ne ñii dañ leen a ñu bàyyi leen ñu dem Ousmane Sonko mi ngi ci kaso bi ki nga xam ne moom la tànnoon mu di Diomaye Faye bàyyi nañ ko nag mu dem mais ba léegi waa Pastef ñoom Ousmane Sonko lañ def comme candidat euh, yow lan nga gis ci élection yi. Hmm, Bassirou Diomaye de bàyyi nañ ko ma dem mais du tee ñu ngi koy fàkkal ay kàmb moom it. ñu ngi koy kàmbal waaw moo tax Bassirou ñu yor wàllum kii yam mu mënee jóg ci moom. ñu gën a jóg ci moom. waxila moom mooy borom beeg mi taar borom mi borom taar bi ab li safi na bi ku leen jar na min daarte mi na ne yaasal min na mm. waaw loolu Serigne Touba moo ko bind féetale ko ak Serigne Bassirou waaw ma ne di wax ak yow ni suufu daaru mi nam laa juddoo kon danaa bëggum Bassirou moo tax ma ne ko laabiré lii ma koy laabiré waaye xam nga am réew nga jiite ko daa nekkuti caaxaan looloo tax kon faaw ma defaru léegi nag bu fekkee ne ki jiite yëf yi toog ci ban bi carrément ndax Serigne Dame gis na ko Serigne Dame bi mu ko mujjee xool kem ci gis nekkul ci pouvoir bi ma ngay xeeñ waaw ma ngay xeeñ nag ci baa bi mais léeragul nañ ne toog na ca carrément ma nga cay xeeñ nag jege na baama est-ce que dégg nga wolof yi ma wax. jege na baaba fan yu néew bu ma xoolee ba mu toog ca baaba ba mu leer bu buñ ko randalee keneen ko fa nekkaat tamit mën la diw mii laa gis xam nga man aw may mais fi mu ne nii may waxee yow nii kii xeeñ ci baa bi toog ci baa bi di ca xeeñ bokku ci poobaam. bokku ci bokku ci waaw. ah bon ah loolu doy na ma la wax. bu baax dégg ma la wax bu baax a man lépp lu ma la wax daa am fu ma koy teg. d'accord maam man dama dul waxee sama bakkan. doo wax man xam-xam laay waxee. d'accord même bu ma nit ki woowee xam-xam laay waxee moom. Mhm. pour ñu bàyyi ci xel bu baax a baax. moom bu ko neexee mën naa gëm lu ko neex mais man xam-xam laa sàkku te xam-xam laay waxee. cest à nit ñi foog ñu bàyyi xel des boo baaxee yenn baax yi comme ni nga mel nii sëñ daam des fois boo waxee nitu àjjana nag mooy def mu waxee nit ñi reetaan. waaw nit ñi am reetaankat sax boo gis. lu jar a moytu la ñu xam sëñ daam mii mooy kan. Euh, mooy kan waa Feuch. ñenn ñi ko fi jege ñi ko fréquenté man fréquenté naa sëñ daam xam naa kan. waaw d'accord d'accord mais Feuch. mais am na ñoo xam ne reetaankat boo gis bu meree def ay. ma wax la ko bis naka tey dëgg la wàllewu yàlla yëpp ñu ci bëri bëri dañoo safoon xorom. te dañ lay fajal sa aajo moo tax reekat boo gis moytu mais am na xalifa général bu mag boo xam ne doo reetaan di xaaxataate ree wala am na wala amul. Mm-hmm. xalifa général bu mag la. gis nga reetaan ku ko def ku jar moytu la. bu ñu meree baaxul. reetaankat mën naa ko ma ci dara de mais reetaankat. Mm-hmm. bu meree def monsieur ba. mais loolu lu jar a bàyyi xel la. Mm-hmm. léegi léegi nag Foch benn mbir mi bëgg naa la ko la lan moo waral sëriñ daam. Euh, maanaam lan moo war a sëriñ daam mel nii mu mel nii oyof geeg yooyu. waaw loolu laaj naa la wax naa la ko sànq mais man dama koo gis damaa ñëw fi nga euh, dëkk. gis